ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp rek di tàmbali nuyoo bi suñu mbokk journaliste yi yi ñëw ngir couvrir événement bi di jaajëfal aussi sunu naataangoo yi nga xam ne ñoo nekkandoo si coalition Yewwi Askan Wi fii si diwaanu Xombol euh, ndaje mi ñun waa Yewwi Askan Wi bu Xombol ñoo ko woote woon di àddu si li nga xam ni moo xew nekk nii si biir Sénégal loolu nag li ko waral mooy waaw conseil constitutionnel li ñu tuddee les sept sages dafa am benn décision boo xam ne dañu koo génne woon bi ñu ko génnee ñaar yi dàq liste Yewwi Askan Wi bu nationale bi ak liste Benno Bokk Yaakaar aussi boo xam te ni suppléants yi la. léegi nag loolu yaakaar ni lii doon loo xam te ni lu méngoo ak yoon la ndax amul fenn foo xam te ni wax nañ ko ci constitution bi walla ci code électoral ni liste yi rek boo de bu ko dem élection. mën ngaa bàyyi titulaire yi mu dem nga dàq ko suppléant yi kon donc dafa doon loo xam ne dañ koy ñaawlu parce que décision la boo xam ne amul fenn foo xamante ni bind nañ ko si constitution bi wala code électoral bi beneen bi aussi mooy que ni dañoo bàyyi waa Benno Bokk Yaakaar tamit seen liste titulaire mu daal yi dem ñaay dàq seen ci suppléant te ñoom bu ñu ko tegoon ci yoon dëgg dëgg dëgg maanaam seen liste bi dafa wër a bokk li tax wër a bokk mooy que ni dafa am ñaari njuumte yoo xam ne da see am bi si njëkk mooy que ni bi ñu déposé seen parrainage yi nombre bi ñu déposé dafa ëpp bu dafa ëpp benn te loi bi dafa wax ni parrainage boo ko dee déposé noom bi nga xam ne mooy maximum bi gën a bëri foofu nga mën a yem plafond bi waroo koo yées waroo ko mooy léegi nag bu ko defee boo déposé loo xam ne dafa ëpp kon donc doon liste boo xam ne doon liste bu bu bu bu valable kon donc dañu waroon dàq seen liste boobu noonu beneen bi mooy respecté wuñu parité bi parité bi mooy boo indee benn góor jigéen moo siy topp te ñoom dañoo seetlu seen liste nationale bi ci 43e bi ak 44e position bi dañoo tegale ñaari jigéen kon donc bu ñu sukkandikoo si ñaari yooyu yëpp rek dañoo mën a wax ni waa Benno Bokk Yaakaar di yoon yaa di bokk si élection yi comme seen liste ñoom ko waroon a dàq léegi nag loolu moo tax ñu ni nag dañuy jukk ñun daal di artu parce que loolu ba amee ba léegi dëkk bi mën nañ ñi maanaam dafa am ay yëngu-yëngu yu fi am ndaxte kat loolu bu ñu ko defee nanguwuñu ko waaye askan mi jug nañ dañuy xeex li nga xam ni tegawul si yoon ba mu amee nag aussi am na ay nit yoo xam te ni faatu nañ si ngeen di ñaan yàlla yàlla xarale na am na ñoo xam ne aussi gaañu nañ si ñi si gaañu aussi ñi ngi ñaan njaay jugaat ak jàmm ba dama nekkaat si seen activité. kon donc loolu ba mu amee li ko waral aussi Macky Sall mën koo def mooy que ni am ñu koy jàppale si ñi ko si jàppale bokk na si maanaam waa justice justice mooy ñi xam ne ñoo war a wàllum yoon ak ñi nga xam ne aussi ñoo war a wàllum administration te administration aussi bu ñu ko waxee dañ ci cité. koo xamante ni doomi xombal la ñu doon xombal waa ni moom di ko wax ni ko aussi lii muy def nii maanaam doon na loo xamante ni honorewul képp koo xamante ni danga nga yeewoo xombal te aussi di ko préciser waat encore ni ko moom li xam ne ko daan def Macky Sall di ko utiliser muy faagaagal ay adversaire politique ak Ousmane Sonko ça ne passera pas du jàll ndaxte bu fekkee day wane ne doo waa la ñun ñi aussi ñu doon ay xombaluwaa Ousmane Sonko aussi kenn ku ko doon xombaluwaa ndax waajuram bu jigéen xombal la fekk baax kun alaf njaa ni ku am kër baay am nga kër ndey te moom ni amee kër baay bu dikkee naan waa jigéen solaa si wàllu papaam wàllu ndeyam aussi waa xombal la te fépp fu mu dem di gisaroo xombal fépp fu ñu ko waxee naa man sama waajur bu jigéen xombal la xam na xombal loo xamante nii am nañu juddoo xombal màggoo fi yoroo fi ba nii ni nii xamuñu ko xombal kon donc doon na loo xamante nii aussi ñu ngi ko si woowaat ñu ko Antoine jomm mbirum àdduna jaru ko fi politique jaru ko fi Macky Sall ko fi parce que pouvoir day jeex pouvoir jàll rek moo doon loo xam ne ni du jeex kon donc ñu ngi koy wax ni ko nag ne desiwaat xale bu baax a baax te li mu def aussi nar koy bàyyi léegi nag fi ñuy daanale mooy waa benn bokk yaakaar dañ woo wax leen leen li nga xam ne tàmbali ni ko fan yii ñu arrêté ko ndax dëkk bi ñu ñëpp ñoo ko bokk nit am na sañ-sañ bu fekkee dañ ko euh, daan doole mu daal di jug mu daal di koy mën a faj si yi nga xam ne moom la ko yoon may gis nañu fan yii yëpp ñi diñuy diñuy attaqué diñuy wax lu nekk diñuy saaga lu nekk ñu ngi koy def dañu jéem provoqué te ñun defuñu leen lu dul dañuy exercer suñu droit constitutionnel li nga xam ne mooy ndeyu sacré bi moo ñu ko may à chaque fois loolu la ñuy def donc seetlu bi ñu ko dee def ñoom dañ ciy boole ay saaga kay ay xuloog yooyu yëpp te loolu da doon loo xam ne ñu ngi koy ñaawlu kon donc li ñu ñaan aussi ñoom ni leen dañu xalaataat li ñuy def bu baax a baax parce que dëkk bi aussi ñu def ñoo ko bokk léegi nag fi ñuy jeexale mooy dañuy woo xombaluwaay yëpp ñu leen nag affaire bi combat bi suñu combat la ñu ñëpp ñaa siy jàpp jéem a préparé aussi élection législative yi nga xam ne moom nañuy jublu ndaxte xaw ma da am benn chance boo xamante ni mooy que ne am na koo xam ne dañu ko ci investir si liste dafa xaw a sori fi ministère bi moo sori mais sinon noonu naa fekk conférence de presse bi kon donc wa ñeen wax ni leen seen doom dañu ko investir nga koy jàppale parce que mi si liste départementale bu yow askan wi bu Thiès kon donc aussi di woo xombal yëpp leen liggéey bi tàmbali na ne ñëpp ñëw ñu àndandoo mànkandoo jàppandoo xaacandoo dóorandoo yàlla may ñu ndam incha allah rabbi si élection législative yi nga xam moom la ñu jëm ci 31 juillet ak jàmm léegi ginnaaw bi ñuy ñaanalee ñi nga xam ne dañoo euh, kii ñàkk seen bakkan ñaanal aussi ñi xam ne dañu see blessé yàlla yëkkati leen ak jàmm ñu ngi demandé à que ñi nga xam ne dañ leen jàppoon si manifestation yooyu noonu muy les détenus ñaa leen libéré si li mu gën a gaawee si biir détenus yooyu dafa am ñaar ñoo xamante ni dañoo bokk Pastef départemental bu Thiès parce que bu nee xombal si département Thiès la bokk kon donc ñoom suñu naataangoo lañ laa leen di jàpp kon en tant que xumbal waaye yoon la bu ñu génnee di wax aussi di ñaawlu loolu di demander à ce que aussi laa leen di bàyyi si ni mu gën a gaawee voilà